الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جسان فيدوبي كوتي تي في جسان فيدوبي بنين إيفيت ما بيجا خبنا جارنا رتدير موي فاندردي 31 مايو 1968 بوبو ministre de l'intérieur ci ndigalu senghor dañoo décrété woon couvre feu mayuñu woon sax juróomi nit ñuy toog di waxtaan ndax situation bi critique na nit ñi jaaxle woon nañ nguur gi tiitoon nañ juróomi nit mayuñu ko nit nga taxaw di waxtaan ñu décréter couvre-feu kon ku mayut juróomi nit taxaw di waxtaan doo maye mbooloo boo xam ni dañuy jiite jumaa foofu bi ajjuma jotee ñu wax Baye ne eh, ah décrété nañ ko wur fa nee nañ julli jumaa du am bàyyi toog ñu yónni benn inspecteur ki nekkoon commissaire de police bu Kaolack Balla Sy la tudd moom dafa yebal benn inspecteur pour mu dem wax baay ne jëlee na ndigal ci gouverneur de la région gouverneur de la région jëlee ndigal ci ministre de l' intérieur ministre de l' intérieur jëlee ndigal ci Léopold Sédar Senghor ne tey kenn bu mu julli jumaa bi mu ñëwee ñu ne sëriñ baa ngi ci biir ñu wax ko ko waa ji ñëw présenté wu wax xam nga lan la ko tontu dafa ne ko demal nga wax ki la yabal man damay julli juma kenn meru munumaa tee julli juma parfois taarix nit ñi dañ ci yokkul lu ci bokkut waaye maa ngi ñaan lépp lu ma wax rek na doon loo xam ne dama ci teg sama bët wala ma dégg ko ci làmmiñu professeur Barham Diop waaye keroog dégg naa balaa waxtu bi muy génn daal jot sax génn na ñaadam ñaadami dem ci jumaa ja waaye tey jii ndam loolu ci li ma xam dégg ko gëstu ko kenn julli wutoon jumaa le 31 mai 1958 1900 euh, comment dirais-je 68 tey jii kon bàyyi keroog yóbbuwaale na géew mboolem umma islamique Sénégal. bu julli wutoon jumaa rek bàkkaar boobu day daanu suñu kaw ñun ñëpp kon ndam lu rëy loolu faydu moo ko indi le détenteur de la fayda moo ko may si TV am ngeen jaaraama yéen ñi ànd baay yéenay liggéey fay du baay bi si di barxama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV yàlla